sëriñ bi dañu sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey waqal bukaau ala saadatin amwaati tabki al araati alayhim kasamawaati حق البكاء على سادات أمواتي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 sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisani wahlulan minhu luqat waj'alhu zakiran wa shakiran abad waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq te di leen bal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal bëgg ñëwaat ak yéen ni ñu ko baaxoo ànde ak yeen ci ay bu ne ci sunu jataayi xam-xam yi ni ànd ak yéen di ci nafarandoo téereb sëriñ bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la mu munawwiru sudur ñu ci doon ànd ak yéen ba suñu bind bi mujj ñi ngi ween ngi woon ak yéen ci bunt bi nga xam ne fi la bi radiyallahu anhu doon leerale bàkkaar yu mag yi nga xam ne jullit bi war na ko moytandiku waaye war na sàmm boppam ba bàkkaar yooya mu aar ci boppam bu baax a baax a baax ngir bañ caa kon buntu boobu jàngatandoo nan ko ba mu jeex kon suñu bindub tey day dugg ci beneen buntu muy buntu bi nga xam ne moom la sëriñ bi tudde albaabu saani mooy buntub ñaareel bi ci téere bi nga xam ne moo di munawwiru sudur moo tax mu ne albaabu saani buntub ñaareel bi ci fii xal bi mi ngi aju ci laabal xol mi ngi aju ci sellal xol mi ngi aju ci euh, dindi yëpp taq-taq wala yëpp gàkk-gàkk yoo xam ne mën naa ayibal ab xol wa jumlatil jawaarixi ak mboolem cëri doomu aadama bi sëriñ bi radiyallahu anhu kon wax na ne bunt bi nga xam ne moom la ñuy dugg mooy bunt bi nga xam ne mooy laabal ab xol waaye it mooy bunt bi nga xam ne mboolem cëri doomu aadama bi li koy laabal ci bunt bi nga koy jànge waaye ci nga koy xame mu wax ne alqalbu ab xol day kal maliki daa mel ni ki buur fil aada yi ca mboolem cër yi nga xam ne mooy cëri doomu aadama bi mahma yamil saa boo xamee ne xol ba jeng na tamil kon mu jàng moom ñoom cër ya maaxti daa i ànd dogal ba sëriñ bi radiyallahu anhu nee na ab xol day ci yaramu doomu aadama ba ab xol ci yaramu aadama bi ab xool ci yaramu mbindeef yi dafa mel ni ab buur boo xam ne dafa jiite aw nit nga xam ne fu mu leen digal ñu jëm fa rek foofa la ñuy aw nee na ab xol noonu la mel ci yaramu doomu aadama bi waaye noonu la mel ci cëri doomu aadama bi nga xam ne lépp loo xam ne ab cër mi ngi koy jëf wala lépp loo xam ne doomu aadama bi mi ngi koy def mu ngi tukkee ci ab xolam ci xolam lay bàyyi ko su ko defee cër yi ñëw jëf ko dëggal ko nga xam ne lépp loo xam ne kon ab xol euh, bëgg ko bu boobaa bu dëppoo ak bëggu doomu aadama bi te bu boobaa itam li nga xam ne mooy cëri doomu aadama bi du ko mën a jëf kon cëri doomu aadama bi balaa mën a jëf euh, lenn lu muy man di doon faw xol ba dafa bëgg loolee ba jeng jëm ca moo tax mu ne la ab xol de dafa mel ni ab buur boo xam ne dafa jiite aw nit buur boobee lépp loo xam ne moom la bëgg day nit ñooñu ca dox jëm nee na xol bi noonu la mel ci cëri doomu aadama bi lépp loo xam ne moom la xol bi bëgg rek cër yépp day jeng jëm ca bëgg-bëggu xol boobe ànd ak dogalub suñu borom bi subhaanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ala inna fil jasadi mudga iza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa iza fasudat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya aw ala huwa al qalb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci xadis ne yaramu doomu aadama bi de am na wen lumb woo xam ne mi ngi ci biir yaramu doomu aadama bi lumb woowu de mooy lumbu wi nga xam ne saa bu jagee jëfi doomu aadama bi yëpp jàkk saa bu jagee doomu aadama ji léppam jàkk waaye lu mboowu saa boo xamee ne yàqu na saa boo xamee ne am na ak fakkastal saa boo xamee ne am na gàllankoor ba tax muy jëf lu suñu borom subhanahu wa taala wala la suñu borom subhanahu wa taala araamal na xam ne loolee mooy la nga xam ne mooy yàq lépp jëfi euh, léppi doomu aadama bi lumbu woowee mooy lan moo di ab xol kon ab xol mooy li nga xam ne moo nekk ci yaramu doomu aadama bi nga xam ne saa bu baaxee lépp doomu aadama bi baax waaye saa boo xamee ne yàqu na itam lépp doomi aadama bi day daal di yàqu suñu borom bi subhanahu wa di wax ba tey ne suñu borom bi subhanahu wa ba tey ne inna allaha wala yonente bi sallallahu ba tey ne inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum yonent bi saa sallam di wax ne suñu borom bi subhanahu wa taala day du xool ci seeni jëmm du xool itam ci seeni melokaan waaye ci seeni xool lay xool li nga xam ne moom ngeen di yéene ci seeni xool loolu la suñu borom bi subhanahu wa taala di xool la ngeen di yéene moo bu fekkee lu baax la loolaay la gën mooy la gënal suñu borom bi subhanahu wa taala waaye bu fekkee ab safaan la itam bu boobaa loola rek ca la suñu borom subhanahu wa taala di la atte kon nit ki li muy yéene ci ab xolam loolu la suñu borom subhanahu wa taala di gis waaye loolu la suñu borom subhanahu wa taala di jàpp waaye bokkut ak li nga xam ne moom lay moom lay jëf ndax jëf ngistal man na ci am te ngistal bu ci amee rek jëf ja daal di yàqu kon suñu borom subhanahu wa taala moom ab xol lay xool yonente bi sallallahu alayhi ne na du xool li nga xam ne moo di yaramu doomu aadama bi waaye wala melokaanam waaye la muy xool dëgg dëgg dëgg mooy jëfi doomu aadama bi moo tax ñuy gis sëriñ bi radiyallahu anhu mu yittewoo xool bu baax a baax di ñaan suñu boroom subhanahu wa taala naa ko ni yàlla na nga wëlbati suñuy xool ci lépp loo xam ne ayib la maanaam na nga ñu wëlbati suñuy xol ci lépp loo xam ne ayib ba suñu xool bu ci jeng jëm mooy li muy wax naa xallib qulubana anil uyubi muy Euh, moom sëriñ bi radiyallahu anhu tamit xam yittewoo gi nga xam ne euh, yittewoo na ko ab xol ak njariñ li nga xam ne ab xol am na ko ak euh, am solo gi nga xam ne am na ko solo moom sëriñ bi radiyallahu anhu moo taxoon mu doon wax ne xol yi ñi nga xam ne ñoo nar a texe ñépp jublu si nañ ci man bëgg ma man cheikhul xadim waaye xol yi ñi nga xam ne ñoo ma ñépp nag ñoom seeni mbir ci ak lënt la ne moo tax mu ne xulubu jumlati lazina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslihu xoli ñi nar a texe ñépp daal jublu si nan kon foofu sëriñ bi radiyallahu anhu waxu fi jëf ñi nga xam ne ñoo nar a texe waaye waxu fi melokaani ñi nga xam ne ñoo nar a texe waaye lan la wax ay xol la wax xoli ñi nga xam ne ñoo nar a texe kon foofu liñ fiy jàngate mooy dañuy jàngate ni jëf ju baax wala jëf ju sell wala jëf ju yiw loolu lépp ci ab xol la mën a euh, euh, bàyyi ko yaramu doomu aadama bi dëggal ko kon ab xol lépp loo xam ne moom la jëf rek day euh, day lépp loo xam ne moom la doomu aadama bi jëf rek day fekk yéene woon na ko ci ab xolam da jiitu su ko defee yéene joojee mooy la nga xam ne mooy sutal jëf ja xol nag doon loo xam ne ci la nit ki di gëme ci la nit ki di weddee suñu borom bi subhanahu wa la ndax yàlla mi ngi wax ci alquran ne walakin allaha habbaba ilaykum al imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun suñu borom mooy ki nga xam ne moom moo bëgg ci yéen ak gëm yàlla moom moo bëgg ci yéen ak gëm yàlla waaye bi mu ko bëggee ci yéen bi bëggee ci yéen ngeen gëm ko ba pare la mu def mooy daf koo rafetal ci seen biiri xol ngëm yàlla googee suñu boroom daf koo taaral jekkal ko rafetal ko ci seen biiri biiri xol ba seen xol yooyee man koo nungu waaye bi mu leen taarale lool ba pare dafa dafa dafa dafa euh, sip ci yéen li nga xam ne mooy ak kéefar ak li nga xam ne moo di ak euh, caay-caay akuk weddi loolu lépp daf koo sip ci yéen waaye daf ko sip ngeen koy fas di ko jëmale ci seeni xol kon moom mooy ki nga xam ne moo leen bëgguloo ak ngëm yàlla waaye bi mu leen ko bëgguloo ba pare itam dafa dafa dafa dafa ñaawal ci yéen waaye dafa sip ci yéen li nga xam ne moo di ak weddi yàlla te gëm ak weddi loolu lépp ñaari mbir la yoo xam ne jëfi xol la xol mooy li nga xam ne moom moo koy def kon nit ki balaa ak ngëmam a wér faw ab xolam daf koy jël jébbal ko suñu borom bi subhanahu wa taala ndax ay jëf yi kese moom mënta tax ñu ne nit ki euh, aji gëm la kon xol bi mooy li nga xam ne euh, mooy mooy mooy mooy mooy euh, wone ne nit ki aji gëm la waaye cër yi li nga xam ne moom moo koy dëggal mooy li ñuy wax ne al imaanu ma waqara fi l qalbi wa amal al imaan muy gëm yàlla dëgg-dëgg buñ koy wax mooy loo xam ne dafa tàbbi ci xolu doomu aadama bi di ak ngëm waaye la koy dëggal mooy jëf ji nga xam ne wala jëf yi nga xam ne moom la doomu aadama bi di jëf xol yi itam doon ndab li nga xam ne ci la nit ki di sellale waaye ndab li nga xam ne ci la ñuy xamee ak naafiq waaye ndab li nga xam ne ci la nit ki di jaare di ngistal kon jikko yooyu yëpp nit ki ci ab xol la koy defee sellal ab xol moo koy def ak naa féq ab xol moo koy def waaye ngistal itam ab xol mooy li nga xam ne moo koy def te ku ne xam ne ne sellal dafa doon euh, lu ama am solo ci diine waaye dafa doon lu ama am solo loo xam ne jullit bu ne war na ko bàyyi xel ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëf yépp ñu ko aj ci yéene te ku ci ne itam la nga xam ne moom nga yéene rek loola ngay am yéene nag doon loo xam ne daanaka mënuñoo tudd benn ponk ci ponk lislaam yi ñuy lim farata ya te jiitaluñu ko ca moom yéene te moom moomee fan lañ koy defee ci ab xol lañ koy defee kon loolu mooy wane solos ab xol waaye euh, am solo gi nga xam ne euh, ab xol am na ko solo ak bàyyi xel boo xam ne war nañ koo bàyyi xel yonente bi di wax ci xadis ne innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi na ngeen xam ne jëf yépp de ñi ko tàkk ci yéene te jëpp jëmm nag jëpp jëpp cam su ne la nga xam ne moom la yéene rek moom lay am képp koo xam ne nag danga ngaa gàddaay ngir joti àdduna ci sab xol moom nga fa fas wala ci sab xol jigéen joo bëgg a takk soxna moo tax nga gàddaay ànd ak ñun da nga xam ne lala tax a gàddaay rek lala tax a jug la nga xam ne moom nga fas ci sa xol loolo rek mooy la nga xam ne moom ngay am kon man ngaa ànd ak nit ñi di dox jëm fenn te fekk na booba yow yaa ngi ànd ak nit ñi waaye bokku leen ak jëm waaye ndax sa xol fa nga xam ne fa la jëm ak fa nga xam ne fa la euh, xooli nit ñi jëm dafa bokkul kon bokk na ci liñ war a xam dëgg-dëgg ñu xam ne yéene ak sellal euh, lépp jëfi xol la xol mooy li nga xam ne moo koy def waaye naafiq itam xol mooy li nga xam ne moo koy def euh, suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ne fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawma yulqawnahu bima axlafu laa laaha maa waaduhu bima euh, yukazzibun Euh, ñooy ñi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala ak naafiq la def ci seen xol ñooñu kon li nga xam ne moom la suñu borom def seen xol mooy lan ak naafiq ak naafiq la def ci seen xol ilaa yawma yulqawnahu ba bañuy dajeeg moom nag ngir lan ngir ñàkk a doyloo li nga xam ne moom la leen suñu borom dig waaye ñàkk a euh, euh, ñàkk a jëfe li nga xam ne moom lañ déelante ak suñu borom subhanahu wa taala ak li nga xam ne mooy weddi gi nga xam ne moom la ñu weddi suñu borom bi subhanahu wa taala kon foofu itam dañ fi jàngate ne xol mooy barab bi nga xam ne ci la nit ki di jëfe ak naafeq waaye ci la ki di sellale waaye ci la nit ki di jëfe-jëfi ngistal xol itam doon barab bi nga xam ne fi la nit ki di tudde yàlla maanaam tudd suñu borom bi subhanahu wa taala nit ki mi ngi koy defee ci ab xolam waaye sàggan ci tudd suñu borom subhanahu wa taala ab xol mooy li nga xam ne moo koy def te loolo suñu borom subhanahu wa taala moo ko wax moo wax ne allazina iza zukira allaha wajilat qulubuhum ñi nga xam ne saa bu ñu suñu borom subhanahu wa taala seeni xol day tooy xib maanaam seeni xol day jàq ngir lan ngir delluwaat ci seen borom waaye ngir fàttalikuwaat euh, seen borom bi subhanahu wa taala suñu borom subhanahu wa taala di waxaat feneen ne ala bi zikrillahi tatma innul xulub ci tudd yàlla ci la xol yëpp di dale kon dañuy xame foofu ne euh, nit ki ak dalam euh, lépp ci ab xolam la aju bu ñu tuddee yàlla nit ki euh, di fàttali ko suñu borom subhanahu taala na ko leer ne loolu lépp ay jëf la yoo xam ne ci ab xolam la bàyyi ko waaye ci tudd suñu borom subhanahu wa taala ab xol mooy li nga xam ne moom moo koy def ndax nit ki saa bu ab xolam day fàtte suñu borom waaye day fàtte euh, li nga xam ne mooy tudd suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax yàlla ne wala tuti man axfalna qalbahu an zikrina wattabaa hawaahu bul topp ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo euh, dañoo sàggana dañoo sàgganal seeni xol ci tudd ñu ñun suñu borom bi subhanahu wa ñu daal di topp seeni bakkan nag ñi nga xam ne suñu borom dafa sàgganal seeni xol maanaam seeni xol dafa sàggan ci tudd yàlla te ñu topp seeni bakkan rek ñooñee na nga leen moytu na leen xàmmi te bu leen jege fenn kon foofu itam mi ngi fi wone ne sàggan ci tudd yàlla ab xol mooy li nga xam ne moom moo koy def ab xol itam doon li nga xam ne mooy euh, andi ak ak texe ñeel doomu aadama bi waaye it mooy li nga xam ne moo ko mën a andil ak texe di ndax yàlla moo wax ci alquran ne fa man yuridillaha an yahdiyahu yasrax sadrahu lil islam képp koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala bëgg na ci moom euh, ak gindeeku bëgg na ci moom ak njub nee na day tijji ab dënnam day yaatal ab dënnam ci lislam te ab dënn nag mbokk yi lañ fay yaatal la tax lislam di fa mën a dugg ci ab rek la mën a jaare waaye nag waman yurid an yudillahu yajal sadrahu xam képp koo xam ne nag suñu borom subhanahu wa taala dafa bëgg ci yow ak réer dafa sopp ci yow ak euh, ak ak sànku nenow boobaa ab dënnam day daal di xat maanaam ab xolam day daal di xat du euh, mën a tudd yàlla waaye it du mën a bàyyi xel suñu borom bi subhanahu wa taala kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne euh, xolub doomu aadama bi moom mooy li nga xam ne moo koy def waaye su ko xol bi fasee ba war koo def ba pare Euh, cër yi ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo koy ñoo koy dëggal mooy li ma wax léegi ne al imaanu maa waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal kon loolu day tegtale am solo goo xam ne ab xol am na ko solo ci euh, yaramu doomu aadama bi waaye bàyyi xel goo xam ne nit ki war na koo bàyyi euh, xel ab xol ak sàmm goo xam ne war na koo sàmm ngir moom mooy li nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy gindi nit mooy gindi nit ki waaye mooy tax nit ki euh, lépp loo xam ne moom la nit ki di jëf moo xam lu baax la wala ab safaan la lépp ci ab xolam lay bàyyikoo euh, ba nit ki man koo jëf moo tax mu ne sëriñ bi ne wa in turid islaaha aw saalin maa su fekkee ne sopp nga euh, jagal sa cër yëpp maanaam sopp nga sa cër yëpp jag li wajihi man ngir jëmmi suñu boroom mi nga xam ne xammaa notal na li ya ñeel ma ay daahu ay noonam nee na kon nan ngay def nena na fa aslix na nga yéwénal alqalba ab xol bila tad nii ci lépp ci ludut ay tër maanaam lépp loo xam ne ay tër la muy ay nëx wala ay ay ay ay bàkkaar yooyu yëpp nang ci seetal sa xol xatta billahi za tamis nee na loolu de saa boo ko defee dangay ngay gis suñu borom subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne mooy nekk sa wéttal nee na saa boo setalee sa xol saa boo yéwénalee sa xol ba lépp loo xam ne mooy ay bàkkaar lépp loo xam ne mooy ak ak ak ak euh, ay ay ay ay ay ak ay ñaawteef yooyu yëpp nga fexee ba muccal ci sa xol nee na da ngay dem ba mujj yàlla rek moom mooy doon sa wéttal yàlla rek mooy moom ngay gis ci sa mbir yëpp waaye yàlla mooy ki nga xam ne moom moo lay euh, aaral boppam moom moo lay teg loxo ngir lan ngir bu fekkee ne loolu am na ci sa xol day dem ba sa jëf yëpp day tënku ci ak sellal te jëf yi bu tënkoo ci ak sellal rek bu boobaa suñu borom subhanahu wa taala day nungu jëf yëpp kon loolu lenn la ci euh, njariñ yi nga xam ne ab xol am na ko waaye euh, solo si nga xam ne ak xol am na ko ak ñi nga xam ne noonu lay Euh, noonu lay noonu lay noonu lay euh, xëcce doomu aadama bi ci bépp jëf boo xam ne moom la bëgg a jëf walla moom lay xëcce cëri doomu aadama bi ba ci yëpp jëf yoo xam ne ñoom moom lañ moom lañ bëgg a jëf kon loolu euh, moom la ñuy andi tey doon ci ànd ak yéen di tuub bu baax te jéggulu lu ci dëng ñu jéggulu ko suñu mbokk yi lu ci dëng rek ngeen jéggal ñu ko lu ci jub nag ñu sante ko yàlla di wax ne in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala sahabati wa sadati kullihim ridwanu rabbil aradi was samawati ala sahabati wa sadati kullihim رضوان رب الأراضي والسماوات